moo xam def nañ ko fa moo xam defuñu ko fa jumaa moom dafay war naka noonu bu fekkee ni tey ci misaal dañoo sancoon dëkk bi nit ñi bari lool ñu samp fi jumaa ñu di fa julli aljuma ba mu yàgg nit ñay tuxu nit ña di tuxu nit ña di tuxu ba la des matatut euh, ba la des matatut fukki nit ak ñaar ak imam su boobaa ñoom duutuñu mën a julli aljuma nga xam ne sart la ci julli aljuma faaw ñu koy taxawee dañuy mat fukki nit ak ñaar ak ka di jiite saa bu ko yéesee rek dootuñu ko mën a taxawee jullit jumaa jooju waaye boobaa jullit tisbaar la mën a julli euh, mu ni wa yajibu saayu ilayha ala man fi lmisri ala salaasati amyaal minhu fa aqal ala ji jumaa nag ki muy war ci dëkk bu mag koo xam daa nekk ci dëkk bu mag a mag te jenn jumaa ne fa wala sax ay jumaa nga fa waaye kañ la koy war mooy bu fekkee ni këram digënde fi dëkk ak jumaaji ji ëpput ñetti mille mille nag kuy jàng téere fiq yi ko ci dégg lu bari bari muy natalé bo xamni borom xam-xam yi dëppoo wuñ ci ñen ñu nekk joxé nañ ci seen version wayé bi gëna digg doomu dal moy kilomètre ak genn wal muy 1500 mètres ñenañ lolu moy tolok ben benn lolu nak boko multiplier par 3 lum la jox ngay xamni sa diggante kër ak jumaaji rek suko yéssé su boobaa yow do sañ tok sa kër baña julli ji suko uppé nak su boobaa dañuy sopp ci nga julli ji rek waye so julli jiwut do ci am bakkar boba loolu nak day aju ci nga baña dekk ci biir dekk bi waye dekk yi wër dekk bi leen waye fekk da nga dekk ci biirub dekk mom ak lu sa keur sori sori sori jumaaja waye waaye ci benn dekk bi su boba julli ji dalay war waye fekk dekk dëkkaan yi wër dekk bu mag bobu nga xamni ne fa la jumaaja ne ko ci xamni sa dekk ak jumaaja ja ëpp na ñatt mil yoy mu wax yaakaar naa loolu buñ ko xoolee day tolok uh, juróomi kilomètre yu manki tuuti rek ndax bu dee 1500 mètres mooy benn mille nga multiplier ko par 3 juróomi kilomètres dina dana waye du bari su fekke dal sa dekk ak jumaa keur dekk ba jumaa nek ak dekk bi nga dekk epp na juróomi kilomètre su boobaa julli ji dañ koy sop ci waye du don war su fekke ni matu ko nak su boobaa julli gi day war ci yow nam waré wa dekk bobé su dé ci bir dekk bi nga dekk nak mom nima ko waxé légui rek lu sa keur sori sori sori jumaa su boba dem ci dalay da war. comme ni ko alquran waxee nag mooy fa ida qudiyati salaatu fantasiru fil ardi wabtaqu min fadlillahi waskurullaha kasiran laallakum tuflihun saa boo xam ne julli nañ ba noppi su boobaa am say soxla mën nga caa dellu comme nag niñ ko baaxoo mii ne ci suñ dëkk yu mel nii nga xam nit ñi comme que ku ne xam ne ne liggéey mënta ñàkk bisub noppalu ñu bari di tànn bisub àjjuma boobu ngir def ko seen bisub noppalu loolu lu baax a baax la ndax dina tax nga mën a dalal saw yaram euh, mën a waajal jumaa ji dem julli ji te du la yàqal dara waaye it nag du sart ni force force nag ki daa war a noppalu àjjuma loolu moom lislaam santaane ko def ko daal suuru férié comme ni ko ñu bari di yaakaare waaye su fekkee nit ki mënta ñàkk a noppalu nag mu tànn ajjuma joojee def ko bisub noppalam su boobaa dara nekku ci te lu baax la waaye nag du suuru férié moom boo xam ne lislaam koo tànn ni julli dina ñu noppalu ajjuma déedéet loolu moom saxut ci diine am na ñoo xam ne nag julli julli leen war moom la borom téere bi naan wala yajibu ala musaafirin koo xamante ni ab tuk daa tukki maanaam daa ñëw ci dëkk te diggante dëkk ba mu jógee ñëw ci dëkk bi ak dekk bi jumaaji ji euh, matna na 72 km te fa su yene am lopp ñent fan su ci yooyu yëpp dajee te doxut doxub lu aram manam lamuy dox lu ñor la su ci yoy te amu fa soxna amu fa kër su ci yooyu yëpp dajee bu baa julli ji jumaaji du ko war su ko defé nak def lu bax waaye du ko war wala habdin du teegeen ak jam manam bu doon jamono ak jam di am ko xamanteni dañ la mom euh julli ji du la war fofu nak la ñuy leeralaale ne lii xewoon ci biir réew mi moom kenn jàppe bu ko ak njaam ci lislaam ak noteel la akuk jaay doole akuk ñàkk xam gu ña doon jàppe ñàkk xam loola lañ koy mën a jàppe waaye du ak njaam gu lislaam jàpp ne ak njaam la njaam dëgg mooy ki nga xamante ni dañ ko woo ci lislaam mu bañ ñu fayloo ko impôt mu lànk diine xeex ak moom ba ba not ko ñañ ca jàppe ñooñu la ñuy tudde ay jaam dëgg-dëgg waaye lii xewoon ci biir réew mi moom ak noteel la woon daanaka téré yi dañ koy jàngale walé lu bare bare bari way ci suñu jamono daanaka amatut man nañ wala mraatin wala goné go xamanteni ni kalafé gut koku julli ji aljuma waru ko su nak nak def lu bax wala mraatin du ci wala jigen bok la bëgg wax jigen julli ji aljuma waru ko te fu muy tollu mu aram ci mom dana ñëw ci biir waxtaan wi amna fu muy tollu nak bu ko défé def lu bax wayé du lu ko war ولا سبين ولا غوني غوندا كو خامتي نيكغوت مكلف كوكو جولي جي وروكو سو جولي جي ديفنا لو باخ ريك وايي نا جولي جي وروكو من وين حضرها حبد او امراه فليصليها مانام جام بيم واخون ولا غوني جي ولا جيجن جي كو تا فك جولي غا سوبا وايت مان نكو جولي تا دارا دوكو تا فك بو وانا واتكون نساء خلف خلف الصفوف الرجال سوبا بو غور ني سابي باغال جيجن داني سابي سي سن غيناو كوم نين كو مينا جي جولي ييب mu ne walaa yaxruju ilayha assabaaba ki nga xamante ni julli ji daa araam ci moom mooy gone gu jigéen koo xamante ne nii nekkagul ab meer nga xam ni góor ñi mën nañoo am ci moom fitna ba léegi su boobaa kooka moom day day araam ci moom mu génn naan day dem ca jumaa ja ak lu mu xër-xër ci diine lislaam da koo tere mu dem ca jumaa ja su ko defee dana ci am bàkkaar bu dee ku màggat nag koo xamante ni nii xaj na kenn amatut ci moom soxla wala soxla yi ca moom te it moom it lislaam sart ci moom mu bañ a waaj waajtaayu rafet su boobaa mën naa julli ji te ak sopp lay doon ci moom rek waaye du doon ak waajib du doon war sax ci moom nag bu ko defee euh, comme li ñu wax léegi alxuraan nee na boo xamee ni julli gi jeex na ku ne mën ngaa dellu ci say soxla euh, mu mel ni aaya bi ci sës lay sababu nusul ba mooy benn bis ci madinatul munawwara yonent bi alayhi salaatu wa salaam daa yéeg ci mimbar bi di ba te jamono yooyu Madina am na xiif bu méttee métti bañ déggee ne njëgg ma ñëw na nag ñu bari wàcc fa jumaa ji dem ñu bari wàcc fa sallallahu alayhi wa moo mu continué xutba ñu néew des fa ñu bari dem ci njëgg ma ngir wuti luñ am ba ñu sëlmalee nag ca la yàlla wàcc aaya yedd ña demoon ni leen wa idaa raaw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qaa'ima qul ma inda allahi xayrun min allahi wa min attijaara wallahu xayru rasiqin daal di yedd ña xamni bayyi won na fi julli gi dem ni len bu fekke ni da ngeen a bëgg am koom wala ngeen bëggum commerce ba tax leena bayyi julli gi dem ci lolé da ngeen xam def ngeen lu ñaaw te lan ne ci yalla ma indallahi xayru min allahi wa min atijaara manam li yalla am mo gën am koom mo gën ci xaan ñoña dadi tup ci bis bobé nak la lañu ko mujjé def motax julit bi ak yitte jum mëna am rek te julit juma war ko su boba war nako bayyi ba julli ba nopi door ci adem ak lu yitte ja lu ni yitte ja far na far don leen nag am na yuñ cay lu melni ni nit ko amé ay bor nit ko amel bor ko xam japp nañ ni bu demee ci juma ja man nañ faa dajé te man nako ko kasso ak yu mel non wala ku yoré malade mo xamanteni jortu nga ni bo demee ci juma ja ñew man nga ko fekk mu loru ak yu mel non ñoñu danañ te amuñu ku len ca wuutu ñu mel noonu danañ len may ñu baña julli ji te dara lu len ca fekk amna yo xamanteni nak dañ koy sopp ci bis bi ci bisub aljuma bobu lu melni ni sangu mom la borom téere wal xuslu laha wajibun way wax di gën moy mustahab lu ñu sopp la rek sangu comme ni ñi sangu aljuma nga yene ci sangu sangu aljuma comme ni ñi sangu janaba la bëgg wax nga yene ci sangu sangu aljuma lolu sopp nañ ko ci bis bi lool ku ko man bala nga genn sa kër nga sangu comme ni ñi sangu janaba te yene ci nag cangaayul aljuma su ko defé ci bir ñap mom ngay japp it bo ci yene walé julli bo booba ñap ma dana ko man way su fekkee yene walé ko ci ba paré da ngay da ngay da kon li mooy mu nit ki bu dee sangu ba toll ci jàpp mu yéene waale eh, julli yéene waale jàpp jàppul farata loolu continuer càngaayam ndax ku ne xam na ni càngaayam sunna la te njàpp mi njàppum farata la moo tax boo ko ca yéene wut rek doo ko ca mën a matale incha allah wa tahjiiru xasan mu ni ak gaaw a génn wa dalik wa laysa salika fi awali nahar ak saa boo xamante ni nodd nañ comme ni ma waxee léegi nodd gu jëkk nga bañ a xaar noddu ñaareel daal di jóg ca gaaw jema dem ca jumaa ja bañ ba dernière heure comme niko ñu bari di defé bayyi rek ba imam khutba ba sori ba sori nga ni xaarama ma dem ndax bañ fa yag lolé ëpp na def li gën moy sa bo déggé noddu gi mu wër la waxtu bi jege rek nga daat dem ndax borom xam-xam sa léral nañ ci jullé ci sappé rek ni ni seeni ja rawanté kon nit ki tok këram na na bayyi ba dernière minute may doora dem bayyi ba imam khutba ba nga xam bu ma yéggé duma yag ci jumaa ja ëpp na def li gën moy téla dem yag fa lolé moy la gën waye nak limi bañ moy nga xey rek suba nga dem booba mën nga faa yàgg yàgg yàgg ba ab fekk bu julli gi ñëwee nam waara doo ko mën moo tax mu la faaw nga bàyyi aw bali nahar mooy ba waxtu wi jege si daal comme nodd nañ la dugg njëkk nga dem boo demee nag toog xaar xutba bi déglu ko xaar julli gi joxe ko mu ni wal tatayabat wal tatayab wal tatayab wal tatayib ak gëttu maanaam xeeñ parfum wala laj ko wala yu mel noonu loolu sopp nañ ko ci bisub àjjuma boobu booy julli ji nga xeeñ xet gu neex daal loolu sopp nañ ko ca bis ba wa yalbasu ahsana siyaabi ak sol yére bu rafet loolu it sopp nañ ko lool ci bisub àjjuma boobu nga xam ni bu mënee weex moo gën waaye bu mënta weex it te bañ a ñaaw rek bañ a tilim baax na mu ni wa ahabbu ilayna an yansirifa ba'da faraaxina ba'da faraaxiha wala yatanafal fil masjid waaw bokk na ci yi nga xam ne sopp nañ ko ci mooy bu ñu jullee ba sëlmal nit ñi jóg doxi seeni soxla te bañ bañ a nekk ci biir jumaa ja di fa la comme ni ko ñenn ñi defee nga xam dañoo julli ba sëlmal la gën mooy nit ki jóg dem bu demee ba këram nag lu mu bëgg naafila mën na faa la bu dee loolu sax maamum bi lañ koy may mu bañ faa nekk di la nga xam dañ koy sopp rek bu naafila it du ca du ko tax du ko ca tax am bàkkaar waaye nag dana bàyyi luñ sopp waaye bu dee moom du ko sañ moom la la wala yafalu dalika al imaamu wal yarqa wal yarqa wal yarqa al imaamu imaamul mimbari kama yadxul maanaam nit ki nit ñi nga xamante ni ñoo jëkk ñëw lan la ñooñu sañ nañoo naafil la balaa ñuy julli waaye bu ñu xasee sëlmal duutu ñu sañ a naafil la bu dee imaam nag moom ci jëkk ñuy julli ak gannaaw ñuy jullee ci am bu agsee rek day daal di yëg ci bi tàmbali xutba bi comme ni ñu ko miinee. bu ko defee xutba boobu nag bu dee ci ngiru imaam Malik ñoom dañoo jàpp ni ci julli la bokk ba taxna euh ku ci wax dañuy japp ni sa julli baaxut boo ko tayee soo tayit ñu japp ni njumte la njumte yalla ko bind nit waaye daal biir khutba bi ngay wuy téléphone nan ko dama japp dama ni ci jumaaji may ma ba ci kanam ak yu mel non yu yëpp budé ci ngir malik ñom dañ koy téré ndax dañu japp ni khutba bi ci julli gi la bok kon waré su ci wax amna ay détails yu bare bari nak yu am ci biir khutba ndax sañees na ko def ci benen langue budul langue arab comme ni ñu ko miné léegi nga xamni ñu bari dañu khutba ci wolof yeneen dëkk yi di xutba ci yeneen langue ya miin loolu moom borom xam-xam yi discuté nañ ci lu baree bari bind ci ay téere yu baree bari it waaye ci ngir imam Malik moom ñoom lañ gën a sopp mooy xutba ñu def ko ci arab ndax comme li ma wax léegi ñoom fi ñu ko wéer mooy xutba bi dafa bokk ci julli gi loolu nag xaj na da lislaam moom dana maye léeg-léeg borom xam-xam yi def ak farlu ci ci mbir ndax nii la gëne wala ne waaye téere yi daan jëkk jàng moom yi ci ëpp la wax moom xutba bi mooy nañ ko def ci arab ñaari patch eh, yep legi ci suñu jamono ji nak min nañ lol ay khutba yo xamni patch bu njëkk bi dañ koy def ci dañ koy def ci arab benen patch bi ñu def ko ci langue wa nit ñi deg loolu it eh, suñu borom subhanahu wa taala eh, mo xam deug dëgg luy way bi ak it ñi koy defit ay borom xam-xam yu mag mag la ñuy ràññee ñoo xamante xam nañ xel ni duñ def lo xamanteni wëru ñuko fu wëru way bu dëgër a dëgër a lolu tax Euh, ñu gis muy doxee noonu waaye bu dee ci téere daan njëkk a jàng moom comme ni ma ko waxee yi ci ëpp dañuy wax ne xutba ci arab lii di bayaan sax looloo ko indi ci jumaa yi muy nit ñi njëkk a ñëw wax ak nit ñi ci làng wañ miin su ko defee bu imaam ñëwee xutba ci arab waaye dañ comme ni ma ko waxee rek gis nañ ni jàkk yu bare bari ñu ngi fay te loolu it ña koy def wéer nañ ko wéer nañ ko fu wéer a ci xam-xam bu wéer a wéer ko teg kon ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu te jéggal leen ci jub ñu xam ni suñ borom subhanahu wa taala waaye lu ci dëngit ñu xam ne sama gàtt xam-xam la in uridu illa l islah mastatan wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh